asalaamaaleykum mbokki internet BP Actu ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te indiwaatal seen yeneen i xibaaru Actu Net ñu ubbee suñuy xibaar ci ki nga xamante ni moo di Awa Ndiaye nekk soxna Oustaz mi nga xamante ni dafa jóge woon këram ñu dabee ko fële na le ci Touba benn groupe bu daayira ñoo ko fa gis daal di koy jébbal yoon moom nag nee na dafa jógoon rekk soldat lam pour demaat kër ay waajuram ndax mënatul nekk kër borom këram nekk na loo xamante ni nag moom Oustaz Sall yëkkateegul ay kàddu di ci wax leen tant que soxnaam ñëwagul ci biir biir kër gi ñu daal di wéyal suñuy xibaax ci ki nga xamante ni moo di Bounama Dia nekkoon ex Ndiobal Seck moom nag ginnaaw ba ñu faatee bakkanu Ndiobal Seck woowoon nañ ko ci tribunal bi doon déglu mu joxe li nga xamante ni moo di version moom nag nee na dafa demoon rek ngir seetalaat boppam bu baax a baax ndax ñaaw na trop ci nopp doomam ñu naan ko sa papa moom moo rey sa yaay li waral nag mënta teew ci li nga xamante ni moo nekkoon enterrement bi parce que nee na xolam mayu ko Ndioba mi nga xamante ni dafa sekkoon ak moom teraanga àdduna ba yàlla may leen benn bant mënu koo tiim ñu koy jébbal borom moom mais naka lu ci mënti am ñoo ngi koy ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jóge ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci li nga xamante ni moom moo xew fa na la ci arène nationale Aliou Seye euh, de mi doon tasante démb at ki nga xamante ni moom moo di ñàkk jaruñu euh, combat boobu dafa mel ni violence la mujjee jeexee ba ñu gaañ ki nga xamante ni moo di Aliou Seye de ba deretam sangu ko nekk na loo xamante ni nag ministre des sports Matar Ba rafetlu wu ko ba tax na nag nee na euh, lu mel nii du continuer ti mukk fii nii ci Sénégal dina ci jël ay mesures waaye ku ci mel ni Bécaye Mbaye tamit yëkkati na ci ay kàddu te naa ñi lii nga xamante ni moo xew démb ci arène nationale nekk na loo xamante ni dafa tirimal delu làmb ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci ustaas bi nga xamante ni moom moo nekkoon fële na le ci wakaam daan sàkku ay xale yu ndaw mu nekk loo xamante ni nag yoon teg na ko loxo mais teewul ni waa Jamra dugal nañ ci seen loxo te naa duñ ko bàyyi benn yoon mu sedd dinañ ko topp ba mu sës ndax ustaas bi li nga xamante ni doon na ko def dafa nekk loo xamante ni dafa tirimal delu lislaam ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci ki nga xamante ni moo di manageru Viviane Chidid boobu ba tey nag ñoo ngi koy jiñ affaire trafic foo visa ba taxoon na kii nii di Viviane dem porte woon plainte di xaar yoon def ci li nga xamante ni moo di liggéeyam mais ku ci mel ni ex jëkkëram bi di Moustapha Dieng moom tamit mi ngi leeralaat bu baax li waraloon mu sol dàllam dem fële brigade de recherche bu Colobane moom nag nee na ba coow lu jibee moom xam na ni amatul benn rapport ak waa Jolof Band mais teewul ni amitié bi desoon na ci diggante ki nga xamante ni moo di Djidjack Ndour ak moom ba tax na nag bu amee problème dafa war a dem teewal ko en tant que ami mais yoonam nekkul ci affaire faux visa. mbokk yi fi la ñuy yem yéen ci seen xibaaru Actunet te di leen jox dig daje ba suba incha allah jaa ngeen jëf. ay appartement de classe appartement meublé yu mucc ay fële ca jàmmalay virage près de la plage wedeen prolongé jàkkaarloo ak géej gi wuy loolu yow séjour bi minimum ba trois jours dong la am nañ tam ay salon ak ay balcon privé ay coin à manger deux chambres à coucher climatisées plus de salle de bain intérieur extérieur télévision écran plat plus de cent chaînes ay cuisine équipée yu mucc ay sax connexion yu fi gratuit possibilité de restauration bu am jom phone 864 09 50 77 864 09 50